borom ma waayi boog jësu boog wakkaana xan laa bëgg a way sëriñ tuuba borom xasida yee dem na gabon dem na maa yombaak li mbër wele jaali galwaaj ki ba ñibbisi moonu dimbali mbirum sëriñ Bamba laa wax buñ ko tënkati nde moo fi tinki ña ñu tënkoon tax ba nuy julli sëriñ Tuubaa xol bu mu ne dootuloo soxor day belli nag moom di reetaan mel ni muntaxaa sëriñ Tuubaa ku mu gënte wala baax moo xotti baax xar fi baax tax tey lépp baax salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi nga xam ni ñooy ñuy seetaan ci seen première site euh, internet euh, du Sénégal alors ñu fas yéene dellusiwaat rek di leen wanaleeg lépp luy xew-xew bàyyi ko ci li nga xam ne rek mooy màggal gi fii ci Touba Mbacké euh, ñi ngi fii nag ci fi nga xam ni ci jannatu di waañ wi nga xam ni mooy waañu ñu dippee waañu Cheikh Béthio ku ne xam na ni saa yu màggal jotee jannatu am na lu muy représenté aussi li nga xam ne rek mooy màggalu Touba ba tax na taalibe yëpp euh, dinañ fi bëgg di jaar ndax lan euh, siyaare waaye ndax lan xéewlu yi nga xam ni berne yi nga xam ni dañ ko fi faral di nemmeeku muy nekk loo xam ne ji euh, ndamal murid la waaye tamit ndamal ki nga xam ni mooy Cheikh Béthio ak sangam bu tedd ba Cheikh Saliou Mbacké kon lii ngeen gis seen ginnaaw rek mooy mbana yi nga xam ni mooy waajal li nga xam ni mooy berne yi ci jëme ko lépp ci taalibe yi kon li ñuy def rek mooy dem gisee ñi nga xam ni ñoo yore organisation bi jëm ci li nga xam ne rek mooy waajtaayu li nga xam ne rek mooy bésu màggal gi incha allah. dinañ ngeen di gis daa fu mu dooree te foofu laa bëgg a tàmbalee ak yéen fi mu dooree mooy si biir kër gi mooy ñaari étage yi ngeen di gis ñu nuroo mu doon kër Serigne Khadim Ngom mi nga xam ni moo jëf-jëf jii tey fa mu dooree mi ngi tàmbalee woon juróom fukki mbana maa ngi fàttaliku. damay teg si kër gi 25 mbana teg si kër gi 25 mbana sa déwén sa ñëw mun ma chéri damaa bëgg tey ñu dàbbali ñu yokk muy 100 ma ne ko nga ni sang mu ne ma waaw ban sa yeggee seriñ bi def mu sont bii jàll mu ne ma damaa bëgg ñu def 200 ma ne ko nga ni sang mu ne ma waaw mu ñëw sëriñ bi def tamit mu son si jàmm ak salaam bii ngeen gis lim bi nii mu toll nii te boo leen gisee nii li ngeen koy yëm yëm yëm des na sambana yoo xam ne damaa amul espace bu ma ko teg barke Serigne Saliou Mbacke ndawala mag pombiteer am ak soble mag lépp fi ne ma ngay tege sambana yoo xam ne espace boo ma ko teg laa amagul fi ne damay xaar maanaam kër gi buuse yi nga xam ne buuse yi buñ paree si kër yi ñuy feese ba kër gi yaatu ma defar ko ba mu set doog faa teg installé yeneen sambana yi pour lim bi nga xam ni moom lañ bëgg daa di mat mu doon loo xam ni nag mbirum sëriñ Touba la te Serigne Khadim day sant te ak cant mooy rendi bernde sëñ Béthio ko ko wax moo ko déy rendi bernde boo paree di ko séddale doo si am xej ji ak seet fi ne nii ngeen ko gisee nii bu paree dañ siy génne lim lim bi mooy dinañ génne 60 bu yóbbu barabu Serigne Saliou génne fanweeri mbana yóbbu bu Cheikh Béthio li si des bu si amee ndigal ñu teg ko fii si penc mi jaaykat yeeg dawalkatu sereet yeeg journaliste yeeg ñëpp xéwlu ba suur buñ xéwloo ba suur la des si lim bi ñu dugg ak moom sancaan yi jeex lay jee daaw fi ne 200 mbana ya bi ma paree dese woon naa 90 mbana 90 mbana yi sancaani laa dugg ak moom fa la jeexee ren jii tamit noonu lay noonu lay demee dara des bu soobee Serigne Saliou lépp la ñuy joxe di ñaan daal moom Serigne Khadim yàlla na ko Serigne bi gën a dooleel gën koo ndamal ba lii nga xam ne saa su ne moom lay am yéene di ko def muy toll si ab lim yàlla na koy matale saa su ne yàlla na dem ba muy taal ay junni junni mbana si barkeb Serigne Saliou ndax kat xam na ne li muy def cun dem ba Yacine Sagor rek moo tax mu koy def. te kooku buñ ko waxee nag xam ne ni moom léppam Serigne tubaa la kon lii Serigne tubaa tax ñu koy def bi ñaan Serigne Saliou ndigal ci ñu yàgg fi loolu te ànd koog wér te ànd koog ñëpp si barkeb Serigne kon kon mën nañu jàpp ni euh, lii daal si euh, ki nga xam ne mooy docteur Khadim moom moom moo ko def. waaw mooy sëriñ Serigne Khadim Ngom cardiologue moo jëf-jëf ji moo jëf-jëf ju rafet ji ngeen di gis neex a wane neex a xool ba fi nekkee ba tey ku romb saa booy xool da ngay ree rek gisaguma benn yoon. ku romb mer ku romb da ngay xool di ree rek ñii ngay sinat ñii ngay fotowu ku xool nataal yi lii c'est la première fois nga xam ne Serigne Touba kon amul tànki ginnaaw nay leen di fii abadin an faridu gam waxoon ni man Serigne Touba aw ma tànki ginnaaw tànki kanam rek firnde laa ngi nii lii ku ko xool tey ku xool Serigne Saliou ndigal cun ba muy soog a nga xool booba xool pénc ma booba xoolaat tey jii di nga xam ni tey jii a ah, baay bi jugu fi nag waaw ku xool tey jii di nga xam ni baay baa ngi fi jugi fi benn yoon fa baay bi tegoon tànk bi rek fa la ko ri yàlla na ko sëriñ bi ndamal saa ne si barkeb sëriñ Saliou Mbacké di leen sant di leen gërëm di ñaan ñu teewe ko ay déwén si barkeb sëriñ Saliou jërë ngeen nga fàttali ñu tuur bi Chérif Ndiaye Touba Janatu Maxwa Chérif Ndiaye Touba Janatu moom mooy jëwriñ jiite mbana yi kon ñu ngi koy sant di ko gërëm waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi siyaar bu baax a baax a baax di àdduna sépp di tuubal sëriñ bi ci ñu xam ak lu ñu xamul ndax ay jaam la nuyu xeebu te yàlla moo ne dama bind nit ci moto de motuñu kon mun naa am saa su ne ñoo ngi tooñ moo tax ñu koy jiital tuub gi di tuub tey ñaan sunu sang bi di sëriñ Saliou ndigal cuun mu yàgg fi te wér lool waaw liggéey bii nag moom bàyyi ma ko tàmbali woon sëriñ Saliou ko sax ñu àndee koog moom ba tey jii ñu nekk waaw saa su ne ak yokk lañ ciy gis ndax ku fi ñëw daawoon gis ni mu meloon xam ne ne melu woon nii boo fi ñëwaatee ren gis yokkute gi da nga xam ni Serigne Touba mbirum kanam lay jëm waaye du dellu ginnaaw te loolu tax na ñun saa su ne dañ ci am ak cawarte am ci mbégte ngir ñëw ci liggéey bii nga xam ni Serigne bee ko teg suñu loxo waaw. bu ñu xoolee mbana yi euh, maanaam lim bi euh, mën nga si jox limam. lii de boo ko wàññi daanaka mën na 400 bana te des na 80 et quelque yoo xam tegaguñ ko te loolu lépp sëriñ bi la. ndax lii mooy waañ bi gën a tuuti ci waañ yi ba waañ yi am na yeneen waañ ndax sancaan yi bari na waaye waañ yi daa doon waañ woo xam ne nii li ñuy togg daa jëm ci bërëbu sëriñ Saliou leen li jëm ci bërëbu cheikh bi leen li ñu berndee ko mbooloo waaye yeneen waa ñi ci des moom ñoo ngi ci biir dëkk bi bari nañ lool waaw ah, kon boo xoolee lim bi rek da nga xam ne lii moom lim la ci loolu euh, ki nga xam ni mooy euh, docteur Khadim Dieng cardiologue waaw nga xam ni moom ñu euh, ngi liggéey liggéey bu am solo ci li jëm ci yoonu sëñ bi waaye nekk koo xam ne ji tamit ku ñëpp ràññee la ci ñi nga xam ne rek mooy digganteem ak waa Kër Cheikh waaw sëñ Khadim moom li naan daa fay naar bi xoromam rek. sëñ bi da koo defal mu xam ne defal na ko rek mu mu mu sant ko lii koo gis boo ko ñemee def ci bisub Sëriñ Tuubaa bii ka nga àndal am na lu mu la defal te sëñ Béthio la àndal ñëpp xam nañ ko sëñ Béthio yëpp sëriñam ñëpp xam nañ ko sëriñ Béthio ko jox ñaari kër yële ñëpp xam nañ ko mu sëñ Béthio la denc ak doomu Tanor Dieng kon kooku du ko ndaw kon moom sëriñ Tuubaa lay liggéeyal sëriñ Tuubaa nag moo amuk pay kenn amuluk pay kon sëriñ Tuubaa mi koy liggéeyal dana ko fay waaw te xam na ni da koo war a def ngir nit bu la defalee loo mënul wala mu defal loo jomb war ngaa def tam yow sa kéemtalaay kàttan te moom dañ koo defal waaw. kàddu yu mujj rek nga war ko jëmee ci li nga xam ne rek bu mu berndee yi pare eh, dañ ko jébbal eh, lenn ci taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoo fi teew. waaw berndee yi da bu paree fi mu toll nii ndékki la ñuy taal. day ñuy teg ne ndékki la ndékki lu so paree dana dem bërëbu sëriñ bi. sëriñ Saliou dana dem bërëbu cheikh bi ak lu ñuy séddale ci mbooloo mi buñ ca paree daan tegaat añ ak reer pour bisu màggal gi noonu lay demee waat tam yenn yi dem ci yenn sancaan yi nga xam ne nii danoo am waañ te toog te togguñu tama amul lenn loo xam ne nii dafay des lépp ci mbooloo mi la jëm ndax ak cant la ñuy wax te cant bernde bernde ren di togg ñam yi neex di ko joxe te doo ci am xaj ak seen ñun xàmmee wuñu tiijaan beeg xaadir beeg laayam ñun doomu aadama rek lañu xam dañ ko koy jox te buñ ko jox day ànd ak mbégte pour mu xam ni ñoo ngi ci cant gi. Ahmed Fall laa tudd dëkk Jannatu Maxwa doon taalibe Cheikh Béthio doon jëwriñu zone Touba jëwriñu waañ Tuubaa